wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala ñu ngi sàkku ñu maase déglu. ñu yëkkate kàddu ci ndigalul sëriñ bi di ko jëme ci liggéey bi nga xam ne. moom la ko Serigne Touba di liggéeyloo te muy liggéey boo xam ne ba sëriñ bi ñëwee jamono ba niñ ko noppee gis xëyam yépp ci la ko daan xëy ñem yar ñépp ci la leen daan yar mooy fexe ba doomu aadama ji di ko indi ci àdduna mu matale ko te waajtaayu wépp jëm yow ma yàlla moo jàngale ci alquran ne fi ma ataka allahu daal axira wala tansa nasibaka min addunia Cheikh Mahamadou Bachir nag nee moom ginnaaw bu mu sant yàlla mi ko bind sant Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul feddle ak cantam ci Cheikh Abdoul Xaadir mi nga xam ne moo ko boole ci Sëriñ Tuubaa ñaanal jëwriñam ji nekk di Sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke moom Sëriñ Abdoul Xaadir